wa batay bok antonou ñu nek ak le grand champion pa Boy Djiné mo bëré fan yu passé rek mbeur ñu lay nuyu di la ziar. mbeur ma leen doon ziar bax baax ngi ziar bëri doole kay adina Guédiawaye info wa ma leen di ziar lu bëri doole yeen jamm rek wa ci kaw kaw barke seigne Touba ma leen di ziar bax baax mom dañu dañoo fi xama Junior di doole diko di xama yalla may ko ndam nak ci combat bi mu jëm dimanche inshallah yalla mi yor ndam ala ko jox ci ko tedd gi wa ñu ngoy doolal ñu ngi ci ginnaawam nak wa suñu mag la suñu xarit la xam mo ra ñu jóge géej waaye ñëw fi fii koñam wa ñu ngoy ñaanal ndam ci barki mam Cheikh Rafal ñu ko koy ñaanal lu bari doole nak waaw. am ah, bari bu la wéso nga nga bëré fan yi passé yagul yalla da def li nga xam te ne gën ci yow nga am ci safaan lan lan nga jàngee ci defat bobu wa sant yalla rek comme nima ko faral di waxé ñun may ñu suñu bop suñu doon may suñu bop kenn du ñu ëppale yalla mom mo yor ndam du liggéey wala entraînement wala dara moy may ndam bu fekkal loolu moy may ndam comme dimanche bu nek ñaari mbeuri bi ñuy génn yóbbaale ndam mais ndam yalla moo ko yor kenn ku nek da nga and ak sa boko dem liggéey ñew lu ci yes yalla moo ko yor yàlla mooy xool koo ne mu joxo ko jox na ko pap yar ñu koy ñaanal ndam yi jikko su mama de combat ci katunu yalla may yalla may man ndam lu gën ci man ñu gis aussi du sa wal préparation nga ñew daari andi volume ñu bari daan est-ce que volume bi nga and non xawla handicap waaw man sama sama combat yu bari non la ñewé ñima andal ñomay ñoo may li ñu bëgg liggéey ñu liggéey loolu mais man moom macha allah sama yaram xam nga damay ëpp nii incha allah damay ëpp nii parce que fi ma teg sama bët la moo tax. noonu la demee. bi nga bëree pare jot nga am nga ay ay ay proposition combat wala benn proto contacté wu la. non man moom loolu ci laa dëkk promoteur yi di ma woo bëgg sama combat ci laa dëkk waaw loolu si laa dëkk ndax ñaar moo am promoteur ñaar lay toppee mbër soo ñëwee stade nga mobilisé wu soo bëree mu neex moom lay toppee mbër moo tax mu lay tëgg. te yàlla dimbali nañu heure bu ñëwee ci bés. macha allah promoteur bi du jëb ah taamaase du ñu jëb ñu ngi ñaan yàlla na xam suñu borom yemale li dëgg di li des suñu kanam mu doon ay ndam bu gënee si ñun nak la wax bu gënee si ñun ndax nit ku nekk ñaan da ngay ñaan li gën ci yow kon man mi nga xam ne man jaam laa mayuma sama bopp maay ñaan yàlla suñu borom mi nga xam ne yor may su may may lu may may may ma lu gën ci man ci doole sëñ Fallou. mbër yan adversaire lan la jot a proposé. waaw ñu ngi may proposé ay adversaire mais man moom comme li ma wax rek man def te def ci fay bëgg ma mbokk ma def loolu ci kàttanu yàlla. yee noonu a demee. keroog ñu xool tamit comme li nga wax tey nga andi nga andi bu rëy stade li topp sa ginnaaw bëri na te est ce que tamit nga jël say responsabilité xool li manqué nga yokk ko. yee ñu ngi baax comme li ma wax rek sànq maa ngi koy wax li TV ñun carrière la ñu war a def sept combats yi ñuy jot a bëre yàqul dara si carrière bi ñu war a def sept combats yi ñu bëre yàqul dara si carrière bi ñu war a def ndax ku teg sa bët tey fi ay millions yi nekk millions yi mu nekk man foofu laa teg sa bët kon nit nag soo tegee foofu sa bët. jaru nga yàqamti dara sa aduna te limay ñaan yalla suñu borom ñeke fu metti mu fu neex la ñaan yalla suñu borom nak fi mo fi mo jot a jaaree ko bu baax di wax bu gëne si man na doli ci doole sëñ fallu mbeur bu loolu weesoo na am la am ten lu am solo la moy sa open press bañ fa ñëw lancé won nga ben message wax ki am tan moy mooy de dar 2 daal koy pour mu woote jamm ñu daal di waxtaan tay am xew bu am Elton ñu yóbbu ko kër Balla de ñu waxtaan daal di jubo est ce que nekkul li ngi leen teewon loolu lañ dégg. waaw loolu rafet na ndax comme lu baax rek laa si jublu man donte nag jeune laa mais tey bu dul dara tey géejawaay soo génnee bi si leader yu bari yoo xam ne bu ñu waxee ñu dégg leen si laa bokk boolewu ma sam boobu nag yàlla mooy xool lu ko neex mu jox ko jàmm Balla Gaye tamit xam nga ñu ngi koy jaale magam mi nga xam ne tey moom moo génn àdduna yàlla xaree ko àdduna tey weexe ñu saraxam yàgg seen loxo ah ci barke Seydina Mouhamed ak ñu fa tëdd ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp Balla Gaye de suñu la lim def géejawaay way jarna delloo lo jar jarna di ko di ko di ko toll di ko diko di ko toll ndax roi des arènes mo ñu ko indil way kon lolu ndam la ñu koy ñaanal jam xam jamam ja yag dal si barki serina muhammad mom ñom la da de guuy gi Les, Elton alin Seye 2 xam jam ñëpp jàmm ñun jàmm rek lañuy ñaan ñaan way ndax seeni rax mëna ñew ñëw xam ouvrier kaw. kon le fait que tay nga gis leen ñu yob Elton balagay de da jubo jubóo loolu sa xol set na ci torop incha allah te dinañ gisantewaat beneen gise bu bokk gise boobu incha bu neexee yàlla.